asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokki Sénégal mbokki Tivaouane euh, maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di jiital ci nuyo bi Serigne Babacar Sy Mouhamadunil Mansour xalif général de tijan ak njabootu Seydil Hadj Malick yëpp di nuyu waa kër sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yi fi nekk ak di nuyu mbokki internet yi nga xamante ni ñoom ñëpp dañuy seetaan euh, Mame Ndokh TV euh, tey nag maa ngi invité sama benn copain. sama benn waay bu ñuy wax Mansour Mané euh, di nit koo xamante ni nit ku bëgg Tiwaawan nit ku jàmbaari ci Tiwaawan di ko xeexal guddeeg bëccëg suba ngoon Mansour maa ngi lay ziar. yàlla yàlla nangu ziar El di nuyu comme ni ko defee rek sunu xalifa sunu kilifa Serigne Babacar Mansour di ko ñaanal sunu borom mu dolli kattan gi ak euh, man-man gi. Euh, gën ko bàyyi ci kanamu njaboot gi mu nekk sunu fierté di ko wax ne namm nañ ko di ko ñaanal yàlla sunu borom sumb bi nga xam ni muy jumaa ji. mu àggale ko ci jàmm jiituñu ci ci ak njaboot alaaji Maalik yëpp di leen ziar bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf mbokk yi da ngeen nuyoo boobu nga xamante ni balxaw mi moo ko nuyoo dagal naa ni nag Mansour xaw mi boo ko joxee mu nuyoo noonu Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour jaadu na xandeer la bu demee ci waar tukkiwul dafa ñibbi ndax moom ne il ne sait pas de comprendre moom lu xalifa bi wax bu nee weex na mu ni tal bu nee ñuul na mu ni kuk bu nee weex na ñuul na mu ni weex na ñuul na moom il ne sait pas baax na wala baaxul li xalifa bi wax rek la wax mais Mansour Mané mooy kan Mansour Mané lan lay lan lay lan lay fight Mansour Mané daa dëkk bi dañuy laaj lan la Mansour Mané di fight lan la. waaw El Hadj xam nga euh, boo juddoo ci boo juddoo ci ci kër am noo fa fekk say waajur taxawee ko nga dem ci mbooloo am bët bu leen di xoole nga taxaw ci mbooloo xabru sëñ Babacar ñu jullee sama magu papa sama papa ci mbooloom yëpp taxaw ñu ne ko looy ngeen di wax. mu ne ñun amuñu kàddu kër Alaaji Malick mooy sunu kàddu ñoom lu nu wax loolu la lu nu waxul waxuñu ko. góor gi loolu la wax sam loolu la wax. man su ma defee lu ma lu ma taxawee ne loolu noonu rek damaa ñàkk jom moo tax man Serigne Mansour borom daara yi moomu tuddee boppam. bés mu juddoo te sëñ Mansour sam papa sëñ mooy sëñ Mansour ko yar. bis ma juddoo la sama papa dugg fekk ko mu guddi ay une heure du matin ni ko soxna si am na doom mu ne ko Mansour la am kon man borom daara lañ ma tudde moo la tudde boppam moom moo joxe tur bu bari jox sama papa xaalis bu bari ni ko lii lépp lu ci njëkk man borom daara yi moo tax sama wenn copain dafa naan yow sa borom daara yi la bal xaw mi bi di ko waral nag sama yaay bu ma daan naxee bu ma daan yéen temps yi booy yow la ma daan naxe naa wala bal xaw mi wala bal xaw mi waaw bal xaw mi ma jël ko parce que ñu bari dañoo yaakaar ne Seydi Mouhamadou Mansour euh, balxaw mi lañ la tuddee. borom daara yi. ah borom daara yi ñun borom daara yi mooy sunu lépp. est-ce que. sam papa tey bu mu taxaw ba liñ koy buñ ko reconnaître tey ak li mu am lépp hmm. yàlla sunu borom ci borom daara la ko jaarale. ñun waa kër borom daara yi rek. kër alaaj maa nag amuñu fa xaaj ak seen ñoom seen wax hmm. moo baax xool ñu ba xam baax naam baaxul ñun noonu lañ ñu yare te noonu lañ fas yéene dunde bëgg ci yar sunuy njaboot di wax nag bépp njaboot fa nga bokk fexe ba am taxawaay boobu noonu. taxawaay boobu jërëjëf Mansour euh, dégg nañu kàddu yi rafet na ku ko dégg xam ne njaboot mooy wax mais Mansour Mané laa bëgg xam exactement Mansour Mané politiquement Mansour Mané kan la àndal. parce que Mansour Mané nit ñi dañ lay xool des fois ci sa ay nit ñi xamuñu opposition nga bokk xamuñu pouvoir nga bokk Mansour Mané mooy kan Mansour Mané ci lan la ne. hélas xam nga élection présidentielle 2019 Macky Sall laa àndal. 2019 yi passé. 2019 Alioune Badara Mboup euh, xam nga ko. waaw mais ci loolu lañ xamante parce que mille 2019 sama turandoo dafa dafa noppalu 2012 Macky Sall am ci taxawaay bu mat sëkk ma ñibbis ci kër gi fekk sama papa toog boobu mu ngi jooy ma ne ko papa xaw ma lande de mais Macky Sall ay suum njëkk a demati moom laay voter mm-hmm. waat ko nag ñu dawal ba 2017. sëñ Babacar Mansour mii toog wax ma Macky ni ko ñaar nga bëgg di ko am vidéo bi ñëpp gis nañ ko man ma nekk njaboot choix bi nag fekk na Macky Sall moom dama ko dama ko mës a a neex quoi parce que doon ñàngalee affaire yooyu ma ne kii dafa am fulla ko am fulla ma ne kii wax affaire yooyu dafa am fulla mu ñaaree bi mu dajee ak li ma doon wax man Macky dafa ma neex am fulla ma ne man est ce que yoon la ma wax sam papa ni ko kii laay votel dem votel keneen ma ne est-ce que tamit sama kilifa gi xalif bi dina wax nii nit may seetaan waxam di teggeeku ma jël engagement ma ne sama koñ moom xaw ma fa mais sama koñ du bokk ci nga xam ne waxu xalif dafay teggeeku ma jël décision jóg jàppale mag sama booy koñ bi ñëpp jóg wallahi alaaj ma leen di rendre sama ay booy la sama ay xarit lañu wallahi lazi kër maas laajal politicien bu nekk Kër Maas 2019 ñëpp la ñu woon APR dee na ci Kër Maas Macky Sall du fi am dara école 3 centre la booy ma jugee dañoo jug ànd ak man am ñoo xam ne dañoo daw di uti carte d'identité daaf pour am carte pour ñoo jàpp ci. groupe boobu noonu noonu ci la Abdou Ndéné yëgee loolu am ku ko wax mu woo ma téléphone mu ne ma ne ko kàlla mu ne ma la monsieur le ministre ne ko waa ñu waxtaan ma dégg naa Macky nga faral ma ne ko waaw Macky laa faral mu maa bëggoon ñëw jàppale la nga jàppale ma ci liggéey bi. mu ne ko mun naa mun nga ma jàppale ci Macky Sall d'accord ci liggéey bi mais man li may liggéey maa ko liggéey sama bopp. Hmm. campagne nañu génnuñu benn koñ nag sama koñ nañu yem campagne sama koñ. Hmm. yàlla def koñ ma Kër Maas 2019 Macky hmm. kon man ma jàpp ni dama waxoon sama papa. taxaw naa ci am na. sama xalif la mu bëggoon la mu waxoon la mu mbébétoon xaw ma ni ñu koy waxee noonu. sama borom def na ba sama koñ bokk na ñoo koy dëggal ma am ci satisfaction. Alioune Badane bu ci la ma gisee ni ma zoo li ngay def nii xam naa la bu baax. ñii bokku leen gëm-gëm parce que mu xam ne xëy na xam na ma ci la scandalu pétrole bi génn yéen di génn ñu nekk ci mouvement aar li ñu bokk aar ñu bokk ñëw gars yi ñëw fi ma leen mi aar ñu bokk ñun ñoo ko doon njëkk ñun nga xam ne ICS a ngi fi industrie yaa ngi fi ñu ñoo waroon teel a jug aar li ñu bokk kon mu ngeen ñëwee dimbali ñu ëppal ñu dooleel ñu dañuy jël loolu moo waral engagement aar li ñu bokk ak frappe yi ngay gis noonu foofu la jóge mais politiquement euh, pour l'instant nii amaguma defaguma sama choix politique defaguma sama choix politique parce que benn ñi ngay gis ñuy wax ak yenn saa yi di nga gis nit ki wax wax bu rafet mais ña muy àndal ñoolu dal sa xel yenn saa nga gis nit di wax wax ju rafet mais na muy doxale moo dal sa xel yooyu yëpp boo ko dajalee moo tax defaguma choix mais mais Mansour man mënuma comprendre Mansour Mané defaguma choix Mansour Mané sa jëfin ñu bari dañu jàpp ni Pastef nga bokk pour ñoom yow élément am Ousmane Sonko man yow yow xam nga ni man su ma nekkoon Pastef damay taxaw ni Pastef laa bokk amul ma ciy ragal. Mansour Mané bokkul Pastef. bokkuma Pastef. bokkuma mais Mansour Mané opposant la. opposant nooy waxe opposant man benn élection laa taxaw ñaari élection safra ñaari laa mës a taxaw xeexal benn candidat jàppale ko di ko defendre ñaari yàlla may ma ci ndam benn mooy 2019 Macky Sall beneen di mooy législative Massata Samb ñaar yooyu moo dama taxaw affirmé ni fii laa far nëbbatuwuma ma du ma nëbbatu El Hadj ma dul lu may def te ni ko nëbbatu bàyyi ko parce que fii boo fi ragal tamit yàlla rek a fi nekk loolu laa gëm yàlla rek a fi nekk man naa am li may def na sam na ànd ak sama sama papa bu mu ni ma déet rek tant que ma déet rek damay def léegi 2019 Macky Sall nga faraloo. pour le moment dangaa da ngaa bàyyi Macky Sall. mais Macky Macky euh, benn bokkatul. Mhm. ñaar scandale yi am après 2019 nga koy topp di ko topp. ak ni muy doxalee nii non ba ma jàpp ni euh, jar na taxaw taxawaat seetaat daal ba xam réellement est-ce que loolu mooy continuer wala du continuer mais Macky moom bokkatul. mais Macky bokkatul mais am na ko mu joxoñ Amadou Bala Macky joxoñ te bi ci des mooy danga ngaa wax ni maanaam waa Kër Sidi Hadj Malick lu ñu wax moom nga wax te dégg nga sax xalifa bi li mu wax ni ko non futur président de la République. déedéet àggul ci président dafa ne président la wax. waaw ban président lay wax. déet xaw ma te man beneen bi ci des mooy dama ko dégg. fi ñu président la wax te bës bu dama lay élage bës bu xale bi taxawee daan ni kii la àndal même su ma la kooku doo ko xam yow. non ko xam dama lay wax. maanaam bu xalifa bi ne Amadou balaa àndal. yow forcément da ngaa war a ànd ak Amadou Ba. déedéet dama déedéet xam nga xam nga mooy li ma la wax. xam nga Macky Sall dafa am avant xalif bi di wax dafa am ay lu jiitu. dafa ni la Macky Sall dafa ma neexoon bi nekk ministre ñu naa ko tuddee ñàngal Sall. jóge ji mu defal tamit su turandoo lu rëy mu wax sam papa la ma koy wax sam papa man sam papa moo nekk ci kaw bu kaw lépp sam papa laa njëkk a waxanteel jaay wax sam papa ni ko kii li ma defal sama turandoo fu muy voté moom laay voté sam papa Abdou Mané naa ko wax dara ma ko après dina leen tax ma koy teggi sëñ Babacar Maal soo ko ñëw moo mujjee wax waxi xalif bi mooy troisième position sam papa duma ko wax loolu noonu sunu borom da koy mën a tax duma ko def mën naa la wax nag yow mu dañ mais sam papa aw ma lu ko gën a seer nii nii ci àdduna bi ci man pour man. mais choix bi ngay def ci candidat bi nga bi la war a jiite 2024. waaw dépendrul ci paa bi n'est-ce pas. non dépendrul ci paa bi. ci paa bi. dépendrul ci paa bi ah. mu ngi dépendre ci yan candidat ñooy bokk ba pare. soo ko xool seen pour le moment nii Mansour ne xamagul ban choix lay def ci benn candidat. parce que boo defee tey jii nii su ma defee choix ci Alliance Mbengue. Mhm. mu dem ñu ne ko bokkoo est-ce que est-ce que damay def def choix par défaut loolu laay bañ. bala ngaa def choix il faut. conseil ñan la ba pare daal di xool ñoo ñan la ak nan seen projet lan la. nga doog a choisir mais Mansour acte yi ngay teg ay acte opposant la très sérieusement parlé ku la xamul say acte ku ko xam day xam ni tu n'es pas àndoo ak ak ak pouvoir bi. Hmm. opposition nga gën a jege. mais waa mais El Hadj xam nga ànd ak pouvoir bi ak opposition xam nga El eh, eh, pouvoir boobu ñi ànd ak moom mooy mooy ñi ñuy jox ngay encaissé di noppi hmm. man population bi laa àndal bu Tiwaawan nag. man sama xeex yëpp comme on di Tivaouane laa ko yemale parce que dama jàpp ni na man bu Tivaouane jegee ba pare lay soog mën a ubbi dem Thiès ubbi dem Mbour di mais li fi nekk jagagul may dem feneen temps bi aw ma ko bi aw ma ko ba pare loolu sax dafa mënta ne fa nga dëkk localité bi département de Tivaouane la war a régler ba pare soo ko mën a yaatal mais li may élage boo waxee est-ce que mës nga fi wax mës naa ngis gis ñu mën a benn xeex boo xam ni ñu ko teg suñu bakkan lépp loo xam ne état ko signé wala état ko wax appliqué wuñ ko loolu la ñuy xeex kon kay état mooy opposition mooy opposant boppam mais ñun état la ñuy jàppale tax moom loolu li bu wax la ñuy topp di xeex mais état bu ne état du Sénégal bu ne nañu centrale solaire yi am na ci cinq pour cent ba léegi ni recouvrer wuñ ko loolu jarul xeex. oui. usines yi nekk ci département bi plus plus de 19 18 industries Tivaouane Jakarta moo fi nekk premier employeur Tivaouane Jakarta loolu jarul xeex. tey jii nii mu am mu am mu am mu am mu am loo xam ni ñun ci dëkk bi lañu la ñu dëkk comme on di mais El Hadj est-ce que jaadu na yow tey sa doom dem euh, GCO wala ICS di demande emploi ñu ne ko boo dëkkul Meewaan dëkkoo Taïba Ndiaye dëkkoo Mboro dëkkoo Daaru Xudus doo bokk maanaam duñu doo bokk ci ñi tànn maanaam doo bokk ci sélection bu njëkk bi. te loolu moo nga dëkk. dama lay wax nii kon xamoo ko woon. GCO buy li ut ay liggéeykat day envoyé benn commission sous préfet bu meewaan ñu ko damaa soxla ay ay ay ay ay photographe ay ay caméraman léegi yow sa yàq sa technicien loolu loo ay ay ay pour nga pour ñu jël pour ñu xool sa pour ñu xool sa dossier il faut nga dëkk ci ñeenti communes yi ma la wax nii meewaan Mboro Daaru Xudus Taïba Ndiaye léegi yeneen communes yi nag léegi ngay bokkul Tiwaawan bokkul Siriflo bokkul Nganjuf bokkul Nooto bokkul yeneen communes yi Tivaouane kenn bokkul te ñoom nee nañ gën a jege gën a yaay dëgg la mais GCO e woon daa impacté wul. suñu kër yi nii raay bu fi jaar xam nga xam na lan la ñuy def est-ce que. Hmm. ñaatoon lañ toog fii ngelaw ICS bi kii bi dugg fii ni ñu koy noyyi. ñaata ñi gis waa Tivaouane maladie pulmonaire yi nii hôpital ñu ñu ne ñun bokkuñu ci te li ma lay wax nii xam nañ ñu du dëgg mais autorités yi wax nañ leen ko mais faale wuñ ñu El Hadj boo koy kaas ñu ne la opposant loolu opposant El mais d' accord Mansour naa ci taxawaay bi mais Mansour tey dama bëgg ñu waxtaan parce que Mansour Mané bi fi Diagne Sy Mbengue nekk ñëpp dañ ñu woon Mansour Mané noonu Diagne Sy Mbengue la Diagne Sy dem Tivaouane gépp nee na noonu Diop Sy nga Mansour et puis dañuy jékki-jékki di gis nga dugg ci benn poste attaqué benn leader quoi loolu lan la quoi Mansour bi ñu des Mansour nga baal ma mais waa Tivaouane nee na da ngaa réew quoi te man xam naa la Mansour yow doonut ku réew quoi Mansour dama bëgg tey nga wax waa Tivaouane kat mooy Mansour Mané parce que Mansour Mané mi ngay gis mu bind ak Mansour Mané mi ngay jàkkaar loolu waxtaan da ngay xam ni non Mansour Mané miy bind bokkul ak Mansour maane mi nga jàkkaar loolu ma bëgg tey nga expliquer waa Tivaouane maane mooy kan en vrai dire mais man Mansour laa tudd sant Mané sañu maa réew sañu maa réew sañu ma ko waruma mhm. sant ma si adduna du yàgg ma nekk xalifa général des Tidiane kon sañumaa réew warumaa réew adduna du yàgg ma nekk saxaaba Seydina Muhammad xam ne wa sallam jax jamono ja wees na sañumaa réew warumaa réew ba pare damaa judd fekk fi waatu yaawoon boo reewee di nga dégg loo xam a dégg man yare ma reewoon de nag dama ji koo xam ne damay tooñ nag dama ko damay tooñ. damay tooñ. Ah damay juum nit laa mais dama fen jombale sama bopp damay tooñ damay juum mais dama fen mais nag képp koo xam xam naa da ngay fen no El Hadj mënoo wax a wax ba nga neex ma kooku moom loolu ci na ci man la moo tax genn saa mi am yenn comportement yi tey jii nii le maire Diagne Sy Mbengue du si Mbengue mais El Hadj mu Mamadou Sy Mbengue seen kër laa jaa dox seen kër laa jaa dox yéle min gumbala ñoo ma doon jàpp seen kër daa du yendu est ce que ñun war naa leen jëlee reewande est ce que ñun war naa leen a bañ mais Mamadou si Mbengue mais su ma waxee moom wax su ma waxee ci moom wax dëgër mais li mu nekk maire Tivaouane tax bu dindee casquette maire bi man grand lay doon ci man ba mu waaj ba mu jógee ci maire bi est ce que nga ma wax ci moom est ce dégg ma wax IPRES wala wala wala SN HLM parce que loolu intéressé wu ci moom man maire bi Tivaouane moom intéressé le maire Demba Diop bi mu nekk Diop si mais daaw ma wax ci moom bi mu nekkee Demba Diop sama maire la dama koy surveiller nee naa la fii benn nit moo am maqaama ñu jox la ñu fal la wala ñu denk la dara te duma la surveiller muy xalifa général di Tijaan moom rek laa laa amul du ma ko surveiller. mais Mansour surveillance boobu ngay surveiller le maire est-ce que amul des fois par exemple nga dulier affaire bi par exemple euh, modérer tuuti sa sa langage. parce que man am na ñaari boo yu ma dalal fii li ñuy wax Mansour Mané dafa wax ni Diop si dañ ko jox sunu 1 milliard mu lekk ko. Mm-hmm. détaillé loolu lan moo tax nga wax ko parce que man xam naa ni am na lu tax nga wax ko loolu leeral ko. waaw mais man moom moo ni génne na 200 millions pour stade bi. Yankhoba Diattara ñëw ñu ne 800 millions la ci lañ ciy teg du 1 milliard. mais Mansour xam nga ni Yankhoba Diattara indiwu fi 800 millions. déet hélas man déet xaw ma ko de man même bu ko doon jox du ma ko jox joxoon xaw ma dara da koo wax yéen médias yi jël nañ ko jàpp ni ministre de l' la bu ko waxee am na fu mu ko teg 200 millions yi Demba Diop wax am na fu ko teg ci li ma jàpp parce que mooy maire Tivaouane te nee na moo génne 200 millions. mais stade li fi jot a am 200 millions lañ ko defaree. même xaw ma mat na xaw ma matul. mais li fi jot a def municipalité bi moo ko def. waaw mais mais mais li fi jot a xam nga xam nga dafa am benn wax boo xam ni il faut ñu bàyyi ci xel. le maire Demba Diop toog ñun sportif dañoo toog ñun sportif yi nañu xam nañ li may wax ñu ko seetaanee mu ne liy defar saab bi ki fi jógee maanaam Mamadou si mbeng bàyyi na ko fi. kon soxatul xaalis pour defar saab bi <laughs> moo ko waxoon. mais ba muy wax loolu waxul multifonctionnel ah. donc li muy li muy inauguré le la woon booba li muy inauguré le 2 lépp mat na loolu la wax maanaam terrain football bi xaalis baa ngi fi gazon baa ngi fi multifonctionnel bi la moo ko ci yokk ñu yaakaar ni kon les féete na côté kon moom li muy génnee pour multifonctionnel bi la war a doon. maanaam multifonctionnel bi il faut 800 millions yi ñëw pour ñu def ci multifonctionnel. ak 200 millions yi mu waxoon na lee moom xaalisam génn nekk. est-ce 200 millions après la génn lu tur tur tur 200 millions yi génn ay fee laa lay wax li ma wax nii c'était un juillet 15 juillet 2022 wax bi ma la wax nii sànq 200 millions yi yàggul El Hadj bi ko waxee yàggul mais yooyu noonu gars yi il ñu leen koy fàttali ñu xam ni ñun lu ñu tëb nii di wax dañuy topp ak ay fee di kon parce que dañu am droit de contrôle. mais beneen affaire bi may dégg ñu wax ni Mansour Mané ma wax ne man opposant Diop si la man damay opposé Diop si te Mansour Mané tànnagul candidat. pourquoi nga wax waxu baatu damay opposé Diop si. waaw no xam nga xam nga xam nga tey bu la nit ñi ñëwee dina la naan la del waxal jóob si del waxal Diop si pour noppi pour wax ji jeex ma leen opposant Diop si la te yem ma foofu de dama leen wax ñu leen bu ngeen bëggee ko waxal Diop si lu baax demee ci El Hadj Mbengue ndox TV ngeen fay ko lu wax dañoo war a wax loolu. loolu laa leen wax mais lan moo tax nga taamu ma ci man. dama jaa nga. non man média dañ may fay pour. ma déedéet non wa wa média non média média maanaam. Mm-hmm. tey Ndokh TV yàlla def na tuwaar yaa fi gën a ëpp ay kii yoo gën a suivre. Mm-hmm. média nga sa waxin la. waxin la mënoon naa ko ñu mënoon tànn. keneen mais est-ce ni muy critiquer Diop si bu Diop si defee lu baax mu am honnêteté taxaw ni lii aussi lu baax la. mais xam nga Diop si def lu baax mooy lan tey jii nii bu defee lu baax ak lu defee lu bon ñaari choix am wala neexee wax wala neexee noppi. mais pourquoi pas ni ngay waxee bu defee erreur. Eh, bu defee lu baax doo ko apprécier. deful erreur ay tottal lay def loolu problème bi ay tottal lay def. mais man dégg naa ci Diop si mu wax nii benn benn émission bu ma doon def boo bi ni Diop si dafa ne entrepreneur bi yow soo ma saaga woon dinaa ko faj. soo ma saaga woon moom entrepreneur bi. Mhm. dinaa ko faj mais mhm. à travers yow ñoo ngi may saaga te mënuma koo faj. Mhm. parce que liggéey bi ci yow la tardé pourquoi pas bu ne leen comprendre Diop si ci ni entrepreneur bi moo tardé liggéey bi. hélas man waa yu doon organiser marché bi. Hmm. laaj leen dañoo toog ma ñu leen bu leen dugg ci ay délai ak ak ak ak defar stade bi hmm. nañ ñu ko na defar ba mu baax mu jox ñu. Hmm. man waxuma waxi délai. marché bi yow loolu nga ci bëggoon. non avant li ma daaw la woon maa ngi maa nga daaw. man leen na defar ba mu baax mu jox ñu bu leen dugg ci délai. gars yi dem est-ce que man El Hadj gars yi kenn mësu fixé Demba Diop délai Demba Diop mooy fixé ay délai moo ne woon 15 juillet la waxoon mu ne 3 mois laa koy defar mu pare. est-ce que du yéene rek bëgg bu gaaw. déet kilifa du waxee noonu kilifa bu waxee mu dañ waxaa mu dañ confiance bi amoon digganteem ak ay ak ñi muy jiite day daal dañ loolu moo ko dal dafa wax mu dañ te te buy wax moom mooy waxal boppam kenn force wu ko mu ñëw wax gaa yi ni ko ñun nawetaanuñu bàyyi nañu football tuñu bàyyi nañu defaral ba mu baax nga jox ñu mu ne 3 mois. trois mois yi passé gars yi ko topp ñu naan jaar na fii jaar na fee gaa yi ñëwaat wax a wax wax mu ne bu woo nawetaan dafa naa demoon ngeen mu woo nawetaan ñi leen 15 juillet laa ko ubbi 15 juillet 2023 ma jox leen ko 15 juillet ñëw nawetaan amul dara amul mais El Hadj mu ñëwat ni ñu le 2 te te le 2 bi gaa yi def yéen sax yéen a ngi koy def naan dañu ubbi stade bi déedéet terrain football ba lay joxe multifonctionnel bi joxewu wu ko terrain football ba lay joxe. te bu joxee terrain football bi ñu ne baax na daal di sant ñu ngi def erreur parce que football bi la woon ak handball ak basket ak yi ci des yëpp ci lañ bokk. mais est-ce loolu warul woon mën a tax Mansour ngeen taaxirlu ba terrain bi pare lépp multifonctionnel bi ñu jox leen ko est-ce que lu ñu dajaloon ci jamonoy Alaaji Moustapha Niang du ñu dalaat par exemple bëgg jot ci stade bi tax ñu jox leen ko le deux te bëgg melul ni mu war a mel est-ce que du woon da ngeen a may temps. maire bi ba mu liggéey ko ba mu sotti mu jig leen mu def leen ko. li ñu daloon ci El Hadj Moustapha Niang moo ñu daloon ci El Hadj Malick ñuy dalaat ci Demba Diop dañ ko dinañ ñu ko jox parce que dafa dafa waroon a moom nangu wax ak gars yi jàkkaar wax ñoom tëgg ñu ne sax dama ñaari at liggéey ko gars yi toog muñ parce que El Hadj yi mun ñaari at a ngi nii football ñu nawetaan fii Tivaouane. oui ah. mais déggu di ma wax mu dañ waxaa mu daj moo dul moo dul jëfi kilifa. dafa am relation de confiance boo xam ne bu ñu ko rompre rek c'est fini ma Diop foofu lañu toll ak moom moo tax ñuy wax dañu war a xam ni ñuy waxee ak ni ñuy communiquer marché keroog bi est ce que dégg kenn ku wax waxi la deux dañu suñu stade la ñu soxla suñu stade la ñu soxla maanaam lam ñu dikk la soxla mais waxuñu ko ban tan nga ñu koy jox def leen loolu def nuance boobu defu leen ko de déggoo gars yi ni ko bantat nga ñu koy jox dañu ko dañ dañu koo soxla moom mu gënoon nañu waa léegi daa dégg naa leen naa leen ko jox tel dab gars yi xaar ko mais moom moo fixé le deux ba tey de ba léegi moo fixé le deux d'accord Massé mbokk yi ko mu ngi <laughs> waxtaan baa ngi noonu maa ngi Massé je crois que ni sa Tiwaawan Tiwaawan ak euh, ñi nga xamante ni yàkkamti woon nañ déglu Mansour Mané Mansour dama bëgg tey waa Tiwaawan gis facette Mansour Mané dëggantaan parce que man je crois que ni du indiscipline mais peut-être Euh, mën naa ni posture la par exemple koo xamante ni par exemple ci principe la taxaw di wax yi muy wax mais nit ñi dañu jàpp ni manque de respect la entre Mansour Mané ak le maire de la ville de Tivaouane dama xam ni Mansour du genre nit boobu ma bëggoon tey nga leeralal nit ñi exactement lan moo am sa diggante ak Demba Diop alors Demba Diop defe naa ñaari laa mos a rencontré benn bi xalifa Gaye la moo ko lijjanti woon benn bi Euh, mairie bu Tivaouane nu astafura ñetti yoon benn bi tase nañ tase nañ mairie beneen bi moo ñu woowoon mairie Tivaouane mooy buñu bi sa coow sàddu bi soo commencé moom moom nee na ma soo sama sëriñ nga loo wax baax na kon kooku dèjà bu dee nit ak nit relation nit ak nit amul mënuñu am problème man moom parce que ma Diop dund na ba am ay millions dund di may dimbali te xamuma lijjantiwuma kon man wàññiwuma ko dara en réalité wàññiwuma ko dara man aussi ci li ma nekk dama cee nekk di ñafe di këtti këtti di gëm xam sama bopp ba pare bu gëm sama bopp di ci nekk tey jii nii man maa soxla Demba Diop moom soxlawu ma parce que mooy sama mère am na loo xam tey jii su ma ko soxlaa faaw ma jaar ci moom par force kon man maa am intérêt à ce que ñu ñun ñu ñu comme ni ñu koy waxee ñu ñu ñu neexoo mais mais du question ñàkk neexoo mais dama gis li muy doxale ma gis population bi ni ñuy ñaxtoo xam ci lu bari mu leer ma ni lii nii du man du lu ñu mën a fajee nii nii nii fa nga taxaw jàkkaarloog mu am ba mu xam ni dëkk bi duñ ko bàyyi ak kenn muy def lu ko neex di dem man maire bu ñi nga invité woon ñooñu am na ñoo xam ne man jomb naa sax di di di di di di wax di tontu leen tontu parce que di doon di doon Sonko laa mu dal ma. dem ba jàkkaarloo Macky Sall di ko xool bàyyi ko fa di wàcc bay wax ak Mame ba di la dal di la dal loolu man ko def. ñooñu doon wax di tudd sama tur xam naa loo ngay wax du ma leen tontu El Hadj parce que man du ma ak ñoom man ak Demba Diop la kon ñooñu man du ma ak ñoom quoi. jërëjëf mais waaw di dala wax ni mhm. ñoom ñooñu dafa am lu ñu liyee loo xam ni nit ñi xëy na xamuñu ko. Mhm. dama lay wax du gàtt. Mhm. Demba Diop ñaari gàmm la fi fe dafa nekk. est-ce amul gàmm buy jot. ñaari gàmm yi laa de Habib Dramé. jël camion vidange indil ma ko. sa kër te sama sama rakk la sama booy la dañoo xamante dama koy mu ne ah, ma gis nga foo nekk ma ne ko mu ne ma camion baa ngi ñëw parce que te am na ñu am ay million bëgg camion du ñu ko am. Mhm. nañ kilifa di ko di ko lu ko bu koy da koy nëbb bëggul wallaahi li ma wax nii na ma ci baal parce musul bëgg ma wax sunu secteur boo demee nii nii may xayoon lamp yaa nga tàkk. Ousseynou Ndiaye ci boppa moo ñëw indi waa Senelec defar làmp yi mu roq boobu noonu. kon ñooñu am na ñoo xam jomb naa ko. a sekk amul lu ñuy def ci sport duñ ci déggante man ak moom Gora Seck président commission sportive. mais kon yow njabootu Diop si nga. non Diop si Demba Diop non duma njabootu Diop si man administré Demba Diop laa Diop si këram la fële moom yooyu beneen domaine la man man Demba laay wax man Demba Diop rek moo ma intéressé. mooy sama maire Khalifa Gaye bés bu taxawee ni man du ma du ma du ma wax lu baax ci Tivaouane pour liggéey boobaa naa am lu ma naqari Ousseynou Ndiaye bu ko waxee dinaa am lu ma naqari góor sa bu ko waxee naa am lu ma naqari mais keneen ko wax man garaawul quoi parce que ñooñu xam nañu xam naa ñu ma lay wax nii xam nañu xam naa mais nag boo comme on di xëy na ñoom di may taxawee ak seen leader moo leen deranger ñoom ñu yàq mais nag hélas ni ma la wax rek ñooñu du ma leen tontu man dem Demba Diop laay sama moom laay jàkkaarlool quoi. maanaam Demba joob la man daal fa laa taxaw quoi. jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu mais sànq wax nga ma ni hmm, yéen yoon ngi woon mais yi ñëw nañ fa vraiment pour euh, jox leen seen lettre pour inviter leen ci euh, le deux bi euh, accueil bi naka ngeen ko gisee. mais El xam nga xam nga gis nga tant qu'on ne fait pas la part des chose dañu dugg ci erreur. Damel de Tivaouane ñu dañoo ñëw bureau daaw jéeg ñu jox ñu bureau Damel de Tivaouane bi ñu ñëwee jox ñu Damel. ñu dañu ni li njëkk a def mooy siège Damel mairie bi Tivaouane lay doon wan mairie bi ni no équipe bi moo ko moom ñu ne président maire maire Tivaouane mooy doon président d'honneur équipe bi wan ko ni équipe bi moo ko moom bu bu ñu nekkee Damel sañu ñu def dara loo xam ne mairie àndu ci sañu ñu maire yi woo ñu ci dara te duñ ci dem loolu mooy di nga xam ne par force la du ay luñ négocier force la parce que mairie mooy suñu patron mooy patron damel ñu nangu ko góor a sekk tey jii nii bu ñëwee dañ koy xoole bëtu Demba Diop lu muy wax dañ koy nangu ñun ñuy dem Thiès di fay ay match match match match match football bi match football bi ñu demoon keroog dépense rek waxuma la jour dépense stade beeg monsieur c'est presque cent cinquante mille élage tey yow góor a sekk ñëw ñu la le le deux dañuy defar terrain bi pour ngeen ngeen football doo dépense sax vingt mais El Hadj kooku doo sant yàlla. oui. xëy na xam nga loolu boo ko waxee ne jaaxal nañu mais loolu ñun la ko defal ñun ñun waa Damel. Mm-hmm. kon dañuy sant yàlla. kon ñun amuñu problème yooyu noonu. yéen wul maanaam El Hadj. Mansour yaa ngi xuloo ah. non non non dama dama dama dama gëstu gars yi bu ñuy wax xam dima li ma dafa am loo xam fa mu wax la ko Ndox TV ñu ngi ñu suivre nañ bàyyi aussi di def ay menaces menace baaxul El Hadj mën nañu wax gis nga El Hadj ma la waxee dara. tontu ma ci ay argument dañu waxtaan ay argument xam-xam su ma waxee dara tegal xam-xam ñu avancé bu dëkk bi avancé booy yeewu ñu xay argument te bis ci li may taxaw fu ma taxawoon daawaat jeg faa taxaw daaw El Hadj man ni ma leen xam nga ne changé wu ma sama position mais dama bëgg booy Tivaouane xam ni muy El Hadj muy Demba Diop muy Mamadou Sy Mbengue muy Ablaye Ndiaye ngalgu muy ku mën di doon. warul ñu jar kenn suñu diggante di ci jax di ci dox. di yàqu dëgg parce que ñun dafa am lu ñu liyee lu dul loolu. parce que ñoom ñooñu xëy na bés bu ñuy bés bu ñuy am na nu ñuy ni ngay amee accès ci man amuñ ko accès ci ci ñooñu. kon ñun lu ñu lu ñu war a boole parce que bu développé Tivaouane ñu ñu il faut ñu ànd. te bu ñu ñu ànd ci euh, war a war ànd pare di xuloo loolu baaxul. te loo ci xamul gis nga bu boo yaakaaree ni euh, ñu waa kër Demba Diop dañoo bon. ñoom zoomaane ñoo baax yaa ngi juum kër Demba Diop boo fa demee am na ñu fa baax ñoo xam ay nit ñu def ñu am ñu am dignité am ngor ay nit ñu am xam-xam ñu nga fa. moom la amee kër dem kër Mamadou Sy Mbengue noonu la amee kër Ablaye Ndiaye noonu la amee kër Masata ak keneen ak keneen ci ñun ñii nga naan opposition bi am na ñuy yées politiciens yooyu noonu am na ci ñun ñu yées politiciens yooyu mais hélas ñi baax ñooy daje defar bu defaree jël ñi bon. di leen indi leen di leen raxas ba mu set. defar leen ngir Tiwaawan jëm kanam. parce que fi mu toll nii Tiwaawan mënul jëm kanam mukk tant ñu ngi xiiroo ko ŋaayoo ci affaire politique. sport bii nii ñu doon wax keroog di marche sport day dafa bokk ci développement bu dëkk. gis nga tey jii nii bu ñu amee benn champion fu nekk nga gis yaa gis développement sport yoo xam nga def nga am sport di muy def. kon loolu du ay caaxaan. mais mën nañu am yaakaar le deux ñu gis euh, ñoom Mansour Mané ak waa municipalité du Tivaouane akolaatante reetaan kaf bi ñu xam ni la paix delsi na. ne El Hadj xuloo amu fi ba paix delsi. non maanaam maanaam xuloo amu fi. d' accord man. waaw man Mansour Mané. Hmm. benn Mansour Mané ci boppam. dina le deux. Hmm. dinaa dem parce que war naa dem fekk ji lan fay wax xam la hmm. fay am. ñaar en tant que vice président des damel de Tivaouane. damay dem parce que. li fi football bi terrain football ba la ñuy joxate damel waxi football lay wax ñett jot invitation officielle bu maire bu mu ngi jox la ko jox ma ko waa maire ñoo la invité non mais Elage en tant que waaw mais en tant que en tant que vice président damel yónnee wuñ ko ñoo ko indi Elage xoolal xaw ma de mais man su ma yàlla mayee wér mhm. dinaa dem incha te waa Damel jàpp yàq yàq dem ñi ma waxtaanal dinañ dem ñun gis nañ problème yooyu noonu ay data yooyu ñoo ñun dañuy def la part des chose di di xam ne nag di xamal gars yëpp ni leen Damel joué na premier match am. Mhm. gagné na Thiès la demoon day dem Fatick lay dem mardi. moyens yi nekku fi da xaalis amul dañoo cotiser bay bëgg a dee ku ci mën a jàpp dañoo jàpp ci Damel ndax Damel fi mu toll nii dañ koo bëgg a teg ci foo xam ne. day jóge fi mu nekk. surtout li ñuy wax ci benn Tivaouane bu na joxe 1000 francs benn Tivaouane 1000 francs bu ñu ko defee am ay millions gis nga El Hadj di jaajëfal ressortissant Tivaouane nekk Dakar. Hmm. El Hadj est-ce que man damel daaw doon dem Dakar di football yi ressortissant ressortissant Tivaouane ñu ne ñu hôtel bi ñaata la hôtel laa wax waxuma ay recours kër de hôtel la ñuy recours ñoo koy fay ressortissant yi nekk Dakar dem nañ fi euh, Kaffrine doomu Tivaouane jëloon ñu euh, euh, logement foofu noonu. Kaffrine pour wax bàyyi nañ xel Tivaouane. Tiwaawan ci diine fu ko laaj Malick yóbbu foofu la diine mën a yem laaj Malick teg na ko fa ñun ñoo des maanaam ci développement ci yeneen domaines yi kon fi fii bu fi ko xëccoo diine xam ni ñu fa xëccoo développement dëkk te mu ñu développé dëkk mukk tant que ñu ngi jàpp ni kii daf maa bañ tant que ñu ngi jàpp kii sama noon la tant que ñu ngi jàpp ni kii dafa bon ndax ànd àndul ak sama déedéet ki la bañ dama ab defoon ngay def fexe ba xam lu tax mu bañ la ba mu bëgg la ki wax dëgg bul jàpp son noonu la xoolal dëgg jam lam la wax nga xool na ko jubbantee na ki nga xam ne dafay ñëw di la jay di la tagg dafa attention ci moom parce que nit mënul def lépp muy baax xam nga yenn saa nga woo ma ni ma da ngaa yabaate dindil sa lii kërën kërën yàlla ba ma ko wax dama koy dindi dëgg la su ma ko dee daal na ba la nga wax ma loolu parce que xam naa ni sa sañoo maa wax loo xam ne da nga koy wax pour sa bakkan am na foo ko teg parce que yàlla moo def nga nekk nitu ñëpp mm-hmm. yow ak Pape ak Ndiaw ma di nuyu sa gars yi nga xam ne ñeneen dañ may daaj <laughs> jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu Mansour a ngi noonu euh, dégg ngeen ko rek ci appel bi mu def appel bi nag dañ ciy jiital ki nga xamante ni mooy le maire de la ville de Tivaouane Demba Diop si borom Sabador bi ci jàppale li nga xamante ni mooy euh, Damel parce que nag lu mu yàgg di def la vraiment euh, génn na ay millions ba tàyyi jox ko Damel de Tivaouane ñu ko ciy remercier bu baax di la xamal ni la Tivaouane mooy nii waxoon naa la ni la yaay bàyyi ñëpp yaay yaay yaay ñëpp waaw xale yaa leen jur ñëpp la bëgg kenn bañu la parce que kii ni mu waxee sànq ci Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi nga wax ko ni ko yaay sama sëriñ moo tax mënu laa bañ loolu mënul nekk kon vraiment père ñu ngi lay xamal ne la yaay suñu papa tey yaay suñu papa ëllëg yaay suñu papa ginnaaw suba Mansour maa ngi nii bëgg Tiwaawan rek a dox Mansour maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di kontaan ci invitation bi parce que vraiment gis naa ni dama laa xoj <laughs> ah, man moom ba ma woowee cest à am loo xam dafa dox suñu diggante man ak yow mhm. xam naa ni wax bi bu naroon dëng sax nga ne ma doo ko fi waxee. oui oui. parce que yow am nga seq sañ nga loolu ci man. parce que li ma la waxoon rek bés ba nga ma fekk hôpital. Hmm. mooy ma lay seen dina bëgg nga ne ma dina ma la ma la def ba li nga wax ba nga <laughs> booba léegi mootuma sañutuma laa wax loo xam ne sax. doo ci doo ci ree loolu la ci parce que loolu loolu da ñàkk ñaan moo tax nga defee noonu. sama olof nag moo si doon ma olof. dëgg la dëgg la moo tax yenn saa yi mooy dama koy forcer. <laughs> mooy dama koy forcer. dëgg la Mansour di xamal di la xamal ni hmm. Tivaouane hmm. gis nga El Hadj muy yéen muy ñun muy ñun ñëpp. Mm-hmm. tant que ñoo booloo. Mm-hmm. jël jël jël Demba Diop teg ko nee. Mm-hmm. jël Mamadou Sy Mbengue teg ko nee. Abdoulaye teg nee waxuma sànni quoi. maanaam xool ñun ñun suñu bopp a pare. ñu booloo ba pare. daal di xool ñeenee na la ñuy def ñoom ba ñu ñu fekk si ñu. ci liy jëmale dëkk bi kanam. defar Tivaouane parce que fi toll nii Tivaouane benn kilifaa fi am de. te booy Tivaouane nag loolu lañ gëm. ma bëgg na jaarale ko fii Ndox TV. pour ñu xam ko kër El Hadj Malick li nga xam ne waa Tivaouane ñoom la ñuy déglu de. Tiwaawan booy yëpp xalif la ñuy déglu. sëñ Babacar Sy Mansour dëgg kese la ñuy déglu ku dem naan booy dañoo réew moo ko dem naan booy dañoo lii waxu la am de man El damay dem ci booy yi nga xam ne dañoo yaakaar ni sax El ay Baye Fall am na ay Baye Fall fii nii damay waxtaan ñu ne ma ñu am benn lu ñoon dajale ñu ne nañ dem ci xalifa la ak tàggoo pare. yow tase nañ xal xalxuus nettoyage ba yow yaa ngi fa fi jël nga ko dëgg la El Hadj xalif bi hmm. ñu koy jege ak yow El Hadj Malick nañ xam ne ñun waa Tiwaawan xalifa bi la ñuy déglu. kese topp ñu leneen moom la ñuy xalifa bi rek lañ topp. leen rek moo ñu ci leen rek moo ñu moo ñu naqariwuñ sax leen rek mooy suñu problème mm. yi ñu ngi leen di baax di leen gërëm alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf